ma tëjee kon rek ci loo xam ne comme am na point waxtu muy fan yi suñ dëkk bi daa am loo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko terewoon ci dëkk bi muy politique xeeti politique yi xew ci dëkk bi 1977 te Moustapha ak Samba Yàlla ci la sëñ Abdoul Ahad joxe woon ndigal tere ci Touba jëngatu politik booba tey ñu ngi koy sàmm waaye seetlu nan na nag élection yee passé yi ñu nekk moom mel na loola ñu ngi ko bëgg a xëtt diggante timis sa geew ak guddi kenn xamatu looy def ci dëkk bi ndax ay karawaan ñoo xam ne daanaka ay way sax lañuy ñuy teglee loolu nag ñi nga xam ne xëy na sëñ montaxari ko gudd ak ñun yëti dëkk waaye noonu xam ne daal ñi ngi bëgg a bat di baaraas boo xam ne si ëpp naa bat di suñ si amat lay fàttali woon na ko bi fi toogee te léegi gis nañ ne lu wër ci dëkk bépp dañuy jaar ci wetu jumaa ji sax def ay kor cortège di teg ay ay wax yoo xam ne amul benn maanaam loo xam ne lu ñàkki teggin la ci dëkk bi loolu nag war nañ ko taxaw ba bu mu am ndax lii ma gis de buñ ko bàyyiwut mun eggee élection présidentielle da nga gis ñu meeting ci dëkk Touba jëru ko ndax la taxoon sëñ bi laaj tere ko mooy daa di bëgg a jaxase bokk yi ci dëkk bi loolu taxoon mu tere ko ci dëkk bi te buñ ko bàyyee nag bu jël siwaat da ngeen day da nga fii ay bokk yi xeex ci dëkk bi ngir politique bu bon bi rek kon nag loolu nañ ci bàyyi seen xel bu baax fan yëpp maa ngi koy naqaru lool di ko ñaawlu lool ci mbedd yeeg cortège yeeg marché yi nii def ci dëkk bi rafetut ja jaaduwut jëkkut sëñ Blanc dana wax ne kuy am lu yëngu dëppal na dem ba ba Mbàkke baa nga génn ndaam benn meeting bu ma sa def boo xam ne amut am na ci dëkk bi amut dañuy dem ba ndaam wala jëm jëm Mbàkke léegi nag bari na ci dëkk bi eggu ay meeting sax mi nga am si ndax ñu ngi wootaay ay xomay café lu ko tudd xaw lu ko am meeting la rek waaye bu leen bàyyee nag meeting moo ci topp kon nag loolu ñu ngi koy fàttali ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk dëkk bi ak di di ko fàttali ki nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ëllëg ba mu fàtt ba mu dexaat jëm ko tere ci dëkk bi ndax yàq képp lay def waaye amul lu ñu ngi sant ñëpp di ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa buñ ko fàtte le 27 incha sëñ ba ñëpp taalal sëriñ bi ñaan na ñëpp taalal sëñ bi boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo